ci euh, tawféex Production comme ni leen ko waxee woon ci euh, alxames ji jot incha allahu taala ñu indi leen nodd ak niñ koy defee ak yi yiñ ci war a seetluwaale lépp allahu akbar allahu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 akbar alhamdulillah euh, buñ la laajee lan mooy nodd buñ la laajee lan mooy nodd na tontu ne nodd huwa al ilaamu bi duxuli waqti salaa bi alfazin maxsuusa nodd mooy mooy yëgle walla nga ne mooy woote waaw ah, mooy yëgle walla nga ne mooy woote tàbbik waxtu julli waxtu julli nag mooy boo ko déggee mooy waxtu julli farata waxtu julli farata suba ak tisbaar ak takkusaan ak timis ak gée ci ay baat yu ñu ko jagleel ci ay baat lañ koy defee yoo xam ne yu ñu ko jagleel la loolu bokk na ci lii tax mbooloo mën a dajaloo te ci dajaloo mbooloom lislaam moomu loolu bokk na ci symbole lislaam loolu bokk na ci li tax mbooloo mën a dajaloo ngir julli jullik mbooloo waaye bokk na ci li tax ñu mën a taxaw ci fegu ci buur jëm ci ci jullik mbooloo te di ko gaawee ca njëlbeeni waxtu ya ndax jullik mbooloo dafa dafay taxa am teddange akum akum ràmm loolu bu nu delloo ci téere fóore ya ñooy soobu soobu tànneef ya danañu gis ne julli mbooloo day tax a am teddange akum akum ràmm kon nodd daal ci tënk mooy yégle wala nga ne mooy woote tàbbi waxtu julli farata ci ay baat yu ñu ko jagleel allahu allahu akbar waaw kenn màggul ku dul yàlla allahu akbar kenn màggul ku dul yàlla kon buñ la laajee lan mooy nodd na nga tontu ne muy yëgle tàbbi waxtu julli wala nga ne mooy woote tàbbi waxtu julli julli farata ci ay baat yu ñu ko jagleel nga xam ne ku ko dégg xam ne wootale ngir julli kon loolu lan doon jiima leeral yàlla na yàlla def suñu dégg ak topp yàlla nañu yàlla woon dëgg fa ñu xam ne muy dëgg mu baax ñu woon mun ci jaar mu woon ñu caaxaan ba ñu xam ne mooy caaxaan mu baax ñu woon mun ko sori asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. de leen wéy nag ñu di leen digal ngeen di wéy di di abonné ci suñu chaîne bi di Tawfekh Production su ko defee ngeen mën di jot waxtaan yi.